je déclare ouvert le dialogue national. Vive le Sénégal et vive la République. xam naa ni mbokk yi traduction am na kon am na ay écouteurs waaye dafa am ñaari kàddu yu ma bëgg a wax ci wolof ginnaaw bu ma sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang tedd bi na Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi leen di gërëm yéen ñi fi teew yépp ndax Sénégal moo fi toog tey ku gis jotaay bi xam ne réew mi moo fi toog kilifa diine yi yónnee nañu wala ñu ngi toog kilifa lislaam kilifa jàngu bi muy église catholique di église protestante autorités coutumières patrona syndicats yi parti politique yi société civile banqaas bu nekk ci réew mi tey toog na fi ak ke fi toogal ak kuréelu askan bi muy institution de la république réew mi nag moo toll foo xam ni képp ku waxul jàmm walla doxo ci liy tax Sénégal jéggi situation bi ñu nekk yaa ngi liggéey ci luy suuxal Sénégal te ku ne war na xam li waral coow li Sénégal élection bu ñu dàq kenn newul élection du am doomu Sénégal yaa ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ngawti ngawte ci àdduna bi lu ne jàppal bàyyil Sénégal jàppal bàyyil mel nu àdduna buy tukki président de la république nee na duma candidat wutatuma mandat le 2 avril ma jeexal sama liggéey damay dem sama yoon waaw ah, loolu loolu war na tax coow am ci réew mi loolu war na tax coow am ci réew mi date bi président moo koy déterminer parce que décret mooy fixe date des élections yomboon na ma lool ma toog ne date bi nangam la te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem parce que loolu loolu mooy li am waaye dama ne du ma fixé date te tooguma ak réew mi déglu waa réew mi déglu candidat yi ci seen diversité am na candidat yu ñu jàllale am na candidat yu ñu téye am na ay parti politique am na candidat yu ñu éliminé am na ñu d'accordul ci li xew am na ñu ci d'accord kon kay li ñu war mooy toog waxtaan suñu biir jiital réew mi jiital intérêt réew mi président bu nekkul candidat newul damay toog bëgguma sax fekkee élection fekkee dëgg lañuy wax waaye nag réew mi mënuñ ko sànni foog ñu xool nuñ koy doxalee dañu dem ci élection fal ki ñu war a fal ci anam yu leer yoo xam ne Sénégal day continuer jëm kanam loolu mooy li ñu fi indi loolu nag ku kuñ ci woo nga ne yow ñëwuloo mais loolu sa mbiru bopp la bu leen foog mu ne man ngeen ko def defuñu ko président de ku ne du ma ñëw waxtaan ci sa bopp nga ko def président def na li mu war a def ku ko bëgg loolu lay def mooy waxtaan ak jalo gi ku ko bëggul loolu lay def mooy waxtaan ak jalo dialogue suñu gee ba pare nag jotaay bi li muy rëy rëy amul dogal bi loolu tam dañ ko war a xam waaye dinañ ne président suñu gis-gis jàpp nañ ne lii mooy li gën ñeneen ne ñun lii la ñu jàpp ne mooy li gën su ko defee nag moom mu xool su taataane ba pare nag jël dogal bi muy jël su ko defee ñëpp jubluwaat ci liggéey dem ci élection yi ci jàmm ak salaam loolu mooy lii jig Sénégal loolu mooy lii jàmmu Sénégal te wax naa ko waxaat ko junj naa ko junj nag doy na borom xel nañu dox jàmm bëggal réew mi jàmm loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu ëllëgu Sénégal kon yaakaar naa ne fii jàmm rek moo fi war a mën a génn ak waxtaan bu fekkee tey pare nañu ëllëg am ngeen journée lëmm su laajee sax ñu yokk ko ngeen yokk ko ñëpp rek wax ñu déglu ñëpp déglu seeni argument su pare ñu taataan jël synthèse yi jébbal ko président la république mu doog a mën a jël décret bi fixé date bi ne bës nangam constitutionnel xamal ko sama xalaat wax ko it mu wax ci loolu ndax si njëlbeen ga ñoom ñooy mujje kàddu googu waaye assises yi am nañ ci wàll mën nañ ci waxtaan ndax yeneen réew mi te réew mi moo nekk ci kaw constitution moo nekk ci kaw élection moo nekk ci kaw lépp ndax réew mi d'abord jàmmam moo moo tax ñun ñëpp ñu nekk fi te mooy njëriñu askan wi kon lii moo doon kaddu ubbi gi ma bëggoon ubbi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ballu ak ñëpp jërë ngeen jëf